naaj maa ngi góor. tey am nga mbégte ginnaaw sarak daan na jël boo xam jël bu extraordinaire la muy say jàmm. Eh, sant yàlla bu baax eh, di ko ñaanal yàlla ko ndam li jig eh, ay ndam yu bari topp si ana lan nga koy dénk mi ci yoon ana lan nga koy dénk. dégg ma ana lan nga koy dénk mi ngi ci yoon. kan moom say jàmbaar lan nga koy dénk mi ngi ci yoon. ah mais fi mu teg tànk mu bañ ko tegi rek ndax mu ngi ci tracé bi quoi. di ko ñaanal yàlla taxaw ko bu baax suturaal ko musal ko si ca laa mel. yàlla mi ngi si jàmm. waaw mi ngi si jàmm. waaw mi ngi si waaj. waaw mi ngi waaj Aziz dafa wax benn polémique mu andi coow lu bare bare bari fii ci Dakar ana lan ngay wax ci coow loolu Aziz Ndiaye wax ci ñaari roi des arènes yi. ñaari roi des arènes mënul am ci benn làmb quoi. waaw mënul am def na ko ba pare. yàlla def na Modou Lo roi des arènes ba pare. waaw ngeen ko déggee nan la leen def. eh man defuma dara. ndax xam naa ne Modou mooy roi quoi mais loolu dara man loolu defuma dara quoi. jaay bëgg kër ñaari roi des ñenn ñi ñu ngi wax polémique yu bari ñu naan combat bi la bëgg mu nekk en jeu wala. non ñaari roi des arènes mënul nekk lamb benn lamb lamb Sénégal mënul am ñaari roi des arènes. mais bi ngeen ko déggee def leen dara. dégg ma. bi ko déggee def leen dara. non man man en personne def ma dara. Euh, Modou Lo ngay wax des arènes ah lan ngay wax Anaconda. Anaconda pare na mu dal rek tey xam nga yàlla suturaal ko may ko ndam incha allah. parcelle gépp booloo lan la tey. ah mais loolu mooy yoon buñ booloo wee rek am ndam bis ngeen di toll wala. ah mais bés bés bésu tuut eh bésu tuut mooy loolu. mais waa Koga farata foog ngeen ànd ak Koga rek. ah mais bu baax ndax moom moom Baye Fall la et eh, moom kuy bëre da lay teewal quoi te eh, dafa dafa yëg nit ñi et eh, kuy bëre open presse boo xewlee et bu ko yëgee day teew boo ko waxee day teew boo ko waxul day teew et loolu moo tax bu amee bésam bu ko gars yi fayee borom rek day day kontaan quoi yàlla ko yàlla may ndam suturaal ko incha allah. maa ngi waat maa ngi waat. jërëjëf. jërë ngeen jëf. petit ci loone sant alhamdulilah maa ngi sant yàlla et eh, nice maa ngi góor tey am nga ginnaaw sarak daan na jël boo xam jël bu extraordinaire la muy seen jàmm et eh, sant yàlla bu baax eh, di ko ñaanal ko ndam li jig te ay ndam yu bari topp si incha allah ana lan nga koy dénk mi ngi ci lan nga koy dénk dégg ma ana lan nga koy dénk mi ngi ci yoon kan moom say jàmbaar lan nga koy dénk mi ngi ci yoon ah mais fi mu teg tànk mu bañ ko tegi rek ndax mi ngi ci tracé bi quoi di ko ñaanal yàlla taxaw ko bu baax suturaal ko musal ko si cat ak làmmiñ. yàlla moo mi ngi fi mi ngi si jàmm. waaw mi ngi si jàmm. waaw mi ngi si jàmm bu baax. mi ngi waaj waaw mi dafa wax benn polémique mu indi coow lu bare bare bari fii ci Dakar ana lan ngay wax ci coow loolu Aziz Ndiaye wax ci ñaari roi des arènes yi. non ñaari roi des arènes mënul am ci benn làmb quoi. mënul am ci def na ko ba pare. yàlla def na Modou Lo roi des arènes ba pare. waaw ngeen ko déggee nan la leen def. eh man defuma dara. ndax xam naa ne Modou mooy roi quoi mais loolu dara man loolu de ma dara quoi. jaay naa si. ñu naan bëgg créer ñaari roi des arènes ñenn ñi ñu ngi wax polémique yu bari ñu naan combat bi la bëgg mu ne en jeu wala. non ñaari roi des arènes mënul nekk te lamb benn lamb lamb Sénégal mënul am ñaari roi des arènes. mais non man man à personne def ma dara. waaw euh, lan ngay wax Ada Seren ah lan ngay wax Anaconda na mu dal rek tey xam nga yàlla suturaal ko may ko ndam incha allah. parcelle gépp booloo lan la tey. ah mais loolu mooy yoon buñ boolowee rek am ndam incha allah mooy loolu. wala. ah mais bés bés bésu eh, mooy loolu. mais waa kooku ah, moom moom Baye Fall la. Eh, moom kuy bëre da lay teewal quoi te eh, dafa dafa yëg nit Eh, kuy bëri open press eh, boo xewlee eh, bu ko yëgee day teew boo ko waxee day teew boo ko waxul day teew loolu moo amee bésam bu ko gars yi fayee borom day kontaan quoi yàlla na ko yàlla may ndam suturaal ko incha allah maa ngi waat waa waaw sant sëñ Bamba bu waaw maa ngi nii waaw ragaluma loolu xarañ mi ngi waaj waaw mu ngi waaj war na bu yàgg dafa wax benn wax boo xam ne dafa andi polémique Sénégal muy ñaari roi des arènes mu ne Balla Gaye ak Tapha Tine day teg li nga xam ne moom moo di couronne roi des arènes d'accord ngeen waaw loolu bu ñu ko waxee Sénégal yëpp xam ne loolu mënul nekk te Assane Ndiaye kilifa la bu la yàlla defee kilifa da ngay nangoo nekk kilifa am na yoo xamante ne bii ay ay ay supporter ay fans ñoo ko defee te fans yi desetul lool moom supporter la li muy wax wax moom kilifa la quoi te tamit ak dara sax am na cër boo xam ne sénégalais jox nañ ko ko ko jox boppam moo gën yi muy dugg nii ay détails yi bu bëggee coow na ci leneen waaye yàlla bu bëggee coow na ko keneen feneen waaye yàlla dogal na yàlla fi mu du teg bi ko Balla Gaye nangoo nan ko bi ko Balla ko nangul Amat Seen nekk ko nangul ko ko Bombardier nekk ko ñu nangul ko ko léegi lan moo tax moo du nekk mu ñëw di créer leneen dafa am lu te bi ko Balla Gaye dee nekkee ñëpp ko ko nangul kenn critiqué ko te bu bëggee ñëwaat naa day teg leneen ak leneen bu amee xaalis muy maye wala lu def na ko def dimbalee ko ñeneen ñoom ñi muy tegal ay kuréel ak lool ñoo am na leneen lu soxla mooy li Modou yor ñoom loolu gën a soxla ka lim tegal lim leen tegal loon bu leen ko tegaloon ñu ne leen ak li Modou yor ban moo la gënal bi Modou yor leen bëgg ndax àdduna bépp xam ne loolu mooy roi des arènes waaw te tamit di ko gën a ñaan yàlla su gën ko dolli jàmm ndax àdduna ñoo ñoo ñoo teg bët li muy def ñoom ñoo koy seedeel quoi waaw yàlla def na mu ba mu nekk ci làmb léegi mosu doon a lu koy xeebe mosu ko def te heure ku génn lu baaxam ngay wax ñun nag loolu moo tax ñu bëgg ko ñun ku bëgg Modou bëgg na la ku ko bëggul foo xam jëmal. mais mais mais dafa andi polémique sénégalais di polémique ñenn ñi ne Aziz da ko def pour jaay combat bi ñenn ñi ne dafa bëgg tuutal ki nga xam ne moom moo di Modou Lo. waaw bu koy def nag moom pour jaay combat am na jaay combat am ak neneen comme làmb ñu koy jaay neneen waaye lii mu bëgg a nekkul jaay nekkul pour jaay làmb waaw dafa mel ni daal li Modou nekk moom moo xaw a lii ci moom. te moom mais mu too ko. waaw ñoom ñaar dañu seq ñoom. non roi des arènes daana koo Balla Gaye. waaw déggoo ma de ma ne moog Modou li mu seq ñoom ñaar moog Modou ñoo ko seq waa ñi nga xamante ne ñoo bëgg Modou ba loo ko waay wax mu métti nu ñun ñooy wax Modou waxul. mais nee na Modou daanakul Balla Gaye bi mooy assurance. waaye ñëpp Balla Gaye daanul ñëpp làmb mënoo daan ñëpp dangay ngay daan ñi daan la xam nga moom li muy wax noonu na ko jël bàyyi teg ko nële moom kilifa la Sénégal dañ ko jox cër man ku ko nawoon laa waaye wax bi mu dox tey tax na maa koy xoolee beneen bët barke alxuraan ndax ñu bëri na ko doon dégg moom doo ko gëm ndax geste yu rafet yi muy def waaye mënoon di def geste yu rafet ba ñëpp ne yaa ngi def geste di génne yoo xamante di waxaat yoo xamante ne bii ku la ci dégg dalay dalay dalay te moom kilifa ku ko ñu ko jox na baa yooyu dafa yor mbërëm muy Balla Gaye muy yor champion ñëpp nangul ko ko na nangul champion Modou Lo champion gi mu doon loolu am na moo ko nangul a wax ci Balla Gaye Tapha Tine coow li bari bi bari waaw combat la bu waa bëre woon nañ Balla daan ko Tapha Tine moo war a ñëw jël sa am na loo xam ne bor boo xam ne mu koy waa Bawol ma ba waa Bawol tamit ñu ngi waaj ak ay mbokkam man Bawol Bawol laa di ñaanal Balla ak Tapha Tine yàlla suñu borom may ko ndam. mais est dina yomb. non du ndax Balla tamit combat bi fonk na ko ndax gis nañ ne jaral na ko mu génn dem liggéeyi Tapha Tine tamit génn dem liggéeyi waaw bu ñu bisee ñoom ñaar ñu xool. état de forme yi boo boo doon wax Tapha Tine lan lay changé boo doon wax Balla Gaye lan lay yokk. waaw Tapha Tine ma ko doon wax mu ndax Balla tamit dafa rapidité waaw. mooy wax Balla Gaye. Balla Gaye muy ni condition bu day na am loxo yi mën a xeex. waaw ndax Tapha bi ma waaw ndax Tapha bi ma gis dafa parce que dafa ñëw pour reyante ak Balla ndax bu njëkk ni ko Balla daanee xam naa ne métti na ko métti na ay supporters am métti na képp yi bool bool ndax boobu da ko humilier ñëw ko da ko duuma ñëw daan ko bi yoon na Tapha Tine gaaw ma ne nangu loolu waaw. jërëjëf waaye maa